kaba boo soos wa kaba mbutooxi mbal ka jangi seen moorey taa lewo ya ñilal lewo poolo korjoor korjoor rey lewo sedar seengoor korjoor rey lewo ya ñilaanoy korjoor yaa kaano ndima jooxe xole maan ba yaa kaan yaa kaano ndima joox hondan magasi asiŋor fo njoyne jongo riif xole maano taanof tem damu papa jaarix bo soos wa kaabo mu tooxe le wo yaa ñilaan yey le wo seda seŋor le wo poon mais loola le wo faajiroole mais loola le wo faajiroole mais xe loola le wo jogoy seŋor melolale wofa sowale mbal ka jangi teŋorey ta lewo yañilan lewo polo korjor lewo korjor kama doxano sereer lewo korjor oma doxano sereer lewo mbaɗ mane xole man fayakan lewo korjor oma doxano sereer mexe lola lewo jogoy sengo fo pelsuumuy lewa korjoor o maado waano seereer mat de seengoor kaana da xam fo pelsuum nijaay baaxeeyu lewe kor joor o ma doxaano seereer coro faal coro ñaka nijaay baaxeeyu salaamaaleykum ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi rasulullah sallallahu alayhi wa noo ngi nuyu bokki Sénégal yëpp ak bokki bitim réew ci émission bu mag bi nga xam ni mooy wëndeelu démb ak tey nga xam ni ku dégg rek ni mu ubbee xam ni ñëw nañ tey ci ku mag ñëw nañ ci koo xam ni euh, kenn dootu ko présenté ti ndax premier président Sénégal indépendant premier africain bu dugg académie française agrégé de grammaire waaye ndombo tànk yépp bi ci ëpp doole nag mooy ki nga xam ni bu ñu waxee Sénégal wax la nation li tax Sénégal jàmm rek mooy am jàmm rek moo fi mën a am mooy loolu nga xam ni muy séeréer muy wolof muy joola muy alpulaar ñépp bokk ndey bokk baay loolu moo tax Euh, ki ñuy waxtaane tey di président Léopold Sédar Senghor bala ñu dugg ci waxtaan wi nag ñu seetaan benn élément Pape Samba nga won ñu ko ci biographie bi Présentez. Euh, je m'appelle Léopold Sédar Senghor Je suis aujourd'hui euh, président de la République euh, du Sénégal. Je suis né à Joal, Sénégal, région de Thiès, département de Mbourg, en 1906, de parents serrères. Mon père, qui était commerçant, s'appelait Basile Diogoy Senghor et ma mère, Nilan Baroum. je suis entré dans la politique euh, par hasard. Euh, C'était en octobre 1945. J'étais boursier euh, du au Sénégal une enquête sur la poésie populaire. Et comme de la commission chargée des colonies à la première assemblée constituante, mes compatriotes euh, m'ont demandé de me présenter avec euh, Maître Lamingue. C'était ainsi que de fil en aiguille, j'ai été député, le membre du gouvernement français, secrétaire général de l'Union progressiste sénégalaise et président de la République. jërëjëf kooku la ñu la ñuy waxtaane tey doomu Sénégal bu mag boobu la ñuy waxtaane tey. ki nga xam ni boo génnee bitim réew boo nee sénégalais rek laa li ñu lay jëkk a laaj mooy ndax xam nga président Léopold Sédar Senghor looloo tax tey jii euh, télévision Futur Média jël nag ci wëndeelu ni dañuy waxtaanee kilifa gu mag googu nga xam ni dafa marqué Sénégal ci yaakaar naa ne xol yëpp daf cee nekk ba suñ jonnu tey waxtaan wi nag ñu jox ko àqam ndax ku mel ni président Senghor mënoo ca def waxtaan ca invité woo ñi nga xam ni ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ni gën nañ koo xam ndax wolof mooy wax ni aw yoon ku ca bokkuloon doo ko mën a nettali ma feggoo ak sama frère El Hadj Mamadou Mbaye Garmi nga xam ni ñoo bokk nekk fii ci wëndeelu waaye nag moom itam mu doon koo xam ni ci askanu ngéwël xam na Senghor li mu indi waaye xam ni itam borom kër gi am na fu mu teg Senghor ndax cosaan ak aada Mamadou mbay Garmi euh, jour Senghor bi tey loo ci wax. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nuy seetaan ak di déglu ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la wax ne daal dëgg-dëgg baat bu foor boobu ñuy wax ne asalaamaaleykum daal cër boobu ñu ngi la koy jox ba mat sëkk. Laman jaaji tey bés bi la tey bés la boo xam ne bii bés bu mag la tey ci bës yi nga xam ne waxuma la Sénégal waaye à travers le monde ku ci nekk yaa ngi bëgg a taataane li nga xam ne nii. moom la ñu jëlee ci suñu premier président boobu homme de culture bu mag boobu boobule ki nga xam ne kii dëkk xëyru xëy rek sotti am na fu mu jaar ba mën a sotti waaye daal dafa am rôle bu mag boo xam ne bile suñu président bu yaru bu yiw boobule daf ko doxal ba tubaarkàlla réew mi agsi fii mu agsi kon daal tey ci dimension yi gën a mag cër bu gën a rëy cëru bi yi nga xam ne nii moom la ñu jox suñu suñu soppe boobu di Léopold Senghor suñu premier président homme de culture bu mag boobule tey daal xam naa bu ñu ci tàbbee àddina yëpp dinañu xam ne daal tàbbi nañ ci koo xam ne kii daal àddina yëpp war nañ ci jëm waaye daal war nañ ko fàttaliku ba àddina yëpp xam ne kii nuy fàttaliku ku am cër la ci réew mi ku am cër la tamit ci li nga xam ne nii à travers la moom sama soppe alaaji laman jërëjëf euh, El Hadj Mamadou Mbaye Garmi ci xalaat bu rafet boobu jëm ci kilifa gu mag googu di président Léopold Sédar Senghor wax naa ko plateau bi dañoo invité nag ñoo xam ni ñu xam président Senghor lañu waaye ñu jox ki nga xam ne mu nuyoo moom itam di professeur Penda Mbow di historienne mm. di représentante personnelle président de la République ci francophonie spécialisé wu ci histoire médiévale ci université Ndakaaru waaye ñu gën koo xam ci wàllu citoyenneté nag mu taxaw moom itam ci wàllu cosaan ak aada waaye nekkoon ministère de la culture xamoon Senghor bu baax professeur asalaamaaleykum waaleykum salaam yàlla man ji Alaaji Mamadou Mbaye gar mii maa ngi leen di gërëm bi leen sant man sax sama yaram dafa daw ndax bi ma déggee ni ñu ubbee émission bi hmm. mu fàttali ma lu bari fàttali ma keroog ba sengoor génnee àdduna Yandé koddu hmm. taxaw ca buntu cathédrale na mu accompagner Senghor doomam ji daf ko dekkal tey Senghor hmm. tey xam naa ni du ñu mën a jeexal lépp sax kontaan nag bokk ko ñi nga xam ne ñoo doon mën naa ni ñooy doomu Senghor ses fils spirituels maître Boukounta hmm. wala poète Amadou Lamine Sall toog fi nag ak artistes yi yëpp di nuyu ñëpp Télé Futurs Médias tey li mu def sax xamul lan la parce que li nga xam ni mooy fondement wu Sénégal hmm. moom la delloosi parce que nag wolof dafa am lu mu wax. nee na ku xamul fa nga jëm dellul fa nga jóge te émission bi buñ koy def jeunesse sénégalaise man laa gis ne moo tax ñu koy def ñu wan leen Sénégal jéego yi mu sekki ba yëg si fii sengoor nag mën naa ni moo doon weñ gi nga xam ni moo tabax ci lañu tabax Sénégal. ndax dafa indi loo xam ne nii lu am importance la woon lu am solo mooy culture la tabaxe Sénégal damay faral di wax ni culture mooy oraawu Sénégal dinañ ci dellu siwaat waaye moom nee na par accident la ñëw ci politique ah ni mu ñëwee ci accident ci politique de kon ñi nga xam ne ñoom dañu jógoon def vocation politique seen vocation kon moom mi ñëw ci accident ci politique mën na leen ci politique ndax suñu xoolee Sénégal fi mu jógee nee nañu 1960 la ñu am indépendance nee nañu itam balaa ñu koy am sax 1960 boobu xalaatoon nañu def fédération ak Mali waaye fédération ba mu mujjul antu Modibo Keïta ak Senghor ñoo ci nekkoon ak Mamadou ja bi ñu yogee ci loolu ñu am indépendance 1960 ba 1962 mën nañu ñaari nit ñoom ñaari personnalité yi ñoo jiite Sénégal muy Senghor Mamadou Dia muy président du conseil dafa amoon tamit ci jamono yooyu loolu loo xam ne nii dafa amoon importance mooy li ñu mënoon tuddee la primauté du parti sur l'État loolu moo amoon parti boobu temps parti Senghor xam nañ ni avant muy dugg BDS moom wax na ko sax fii ci rajo ci sànq ci élément bi moom Lamine Gueye la àndaloon ñu génne SFIO section française de l'internationale hmm. ouvrière ba ñu ñëwee ñu ñëw moom mu génn ba mu génnee ci Lamine Gueye ci la créé BDS bi mu créé BDS BDS boobu ba nga xam ne bu mu demee ba yi nga xam ne ànd naag waa pra pra Sénégal yi ñoom ñoom ñoom Abdoulaye Ly Amadou Mahtar Mbow ak ñoom ci la ñëw defar UPS Union progressiste sénégalaise professeur yi ngi bëgg a tàng waaw léegi ñu gaawantu bëgg a ci nuyoo bi léegi ah nuyoo bi <laughs> <laughs> léegi bi loolu euh, amee léegi ma terminé uh-huh. ba ci balaa ñuy ñëw ci parti social dañ ci dellu si waat waaye mën naa ne daal mm-hmm. Senghor mm-hmm. état bi mm-hmm. parti politique aspect boobu. jërëjëf tabax na ci Sénégal waaye nañ dellu ci ma gën a ñor nag. da nga ci da nga ci ñëwaat léegi. mooy mooy culture daañu ci dellu si da nga léegi ñu kontaan ci présentation historique bu mag boobu. Euh, kooku doon wax professeur Penda Mbow di koo xam ni moom itam ci wàllu culture. wàllu cosaan ak aada def ci am xam-xam boo xam ne nag wax dëgg yàlla kenn nattablewu ko ci Sénégal mbokk yi xam ngeen ni fii ma toog sama rak sama frère Pape Cheikh Diallo di suma xarit moo fi doon nekk waaye dafa nekk yeneen yitte waaye incha allahu rabbi dina jëli siwaat continuer ni mu doon defee wëndeelu bu soobee yàlla. waaye xam ngeen nii bu ñu nee wëndeelu aussi euh, Mbaye Dieye fay di kenn ci nun di kenn ci borom kër gi ci ab yaram ci ay tegginam ci xam histoire Sénégal ak tradition rawatina encore ci wàllu tëgg doone ko ci baayam waaye doone ko aussi ci ay maamam euh, Mbaye Dieye Faye euh, wëndeelu tey ci président Senghor Babacar. gannaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. Euh, sant suñuy waajur di leen ñaanal suuf oyof euh, ci seen kaw alaaji V5 Faye alaaji Doudou Rose di ñaanal sama yaay ji mu yàgg fi te wér ajaratu daaru ak ajaratu ndeycaan Thiam euh, ziar àdduna ziar këru diine yëpp fu ne ma dugg fa joxe fa loxo hmm. jox leen seen wàccuwaay ziar sama sëriñ sëriñ Babacar Sy am contentement nag ci nuyoo bi la mat mi nga xam ni Euh, say wax sell na say kàddu rafet na xool la rek yiw ngay gis alaaji Mamadou mbay Garmi sama rakk jooju nga xam ne moo toog foofu da nga xam ne ciment la ba benn yoon rek lay tooy ak ñi nga invité ñi ñu invité tey suñu jigéen di ajaratu penn mbaw euh, professeur toog noonu euh, mu am lu mu wax sànq daal na tey njabootu président Senghor ñoom ñoo toog kon nag bu ñuy waxtaanee ab président boo xam ne moom la sunu borom tegoon ci miim réew. Mm. Euh, dina jaadu nag ñu nuyu président bi fi yàlla teg jamono jii ak nii ñuy wax ak yéen muy président Macky Sall mm. euh, jox ko wàccuwaayam ndax xam naa ni kat président Senghor bokkoon na ci ñi ko inspiré. ba mm. tey jii ñu mën ko wooye président ziar soxnaam Adjaratou Marème fay sal beneen bi may ziar sama xarit sama doomu ndey muy le président Youssou Ndour. te naan ko ñu ngi lay ñaanal jàmm. xam naa ne yaa ngi sa kanamu télé di seetaan. Mm. parce que waxtaan wi tey euh, ñor na la lool waaye li ma ci gën a neex moom mooy samp tele wan ko ginnaaw mel ni moomoo tele bi. Mm. liñ ciy feeñ sax du bari. kon Youssou ñu ngi lay ñaanal wér di ko ñaanal suñu yaay ndey soxna Mbuub suñu baay Eliman Lamat. tey jii ma jàkkaarlu bu ngeen gisee fii ma toog. Mm. ngeen xam nag am na lu rëy lu war a am tey. <laughs> jàkkaarloog puissance. ñan ñoo ubbi ah ñëw bi nag moom mooy. waa kër sama yaay jooju di ajaratu yànd ko du seen nga xam ne ñoo àndoon nag moom tournée international wër Europe samay frère toog nii ci ginnaaw hmm. tey nag moom la mat ki ñuy waxtaanee président Senghor. jërëjëfati kooku nag waxtaan wi dinañ ci xos ci kanam. xam naa ne tey jii képp kuy séeréer ak ku dul séeréer di tukulóor ak joola ñëpp ngi toog di seen seen salon di seen. Eh, mais Mbaye Dieye. ah tey nag la ñuy xam ba tam tukulóor yi ñoo moom séeréer yi wala séeréer yi ñoo moom tukulóor yi. Ah, tey boobu lay xew. ci plateau boobu nag dinañ ko ci xam. foofu jërëjëf Babacar euh, ci présentation bu rafet boobu macha allah. ci yiw gi ak yar bi rek. Euh, ñu ñëw toujours ci animateurs yi wëndeelu nga xam ni koo xam ne moom itam kenn dootu ko présenté ci yaram waaye nag ci fonk doomu aadamaam di Abdou Faye puissance puissance yooyu itam yaa ngi ñëw ci émission bu rëy tey waaye xam nga ni euh, yaa ndi ko dinañ ubbi muy sa bàjjan puissance yooyu itam nga nuyu. ngeen jëf maa ngi santaat yàlla bu wér di sant waa Daaru Rahman yëpp di sant sama sang bi ci Daaru Rahman sëñ Mouda bi Mbàkke du nuyu waa Pikine du nuyu Areñaay tubaarkàlla macha allah di njëkkee nag ndax séeréer dafa ne okkiin fogum balaa maa nuyu kenn ah damay nuyu sama bàjjen bi toog ba pare Aïda mbay bàjjen maa ngi lay nuyu di jox sa wàccuwaay waaye nag ma jógee ci loolu laman maa ngi lay jox sa wàccuwaay borom xalaat bu rafet bi Mamadou may Garmi mm. sama yaay Aïda mbay sama sama yaay eh, sama yaay eh, ay eh, Penda Mbow maa ngi lay jox sa wàccuwaay. di nuyu nag kilifa yi toog nga xam ne boo leen ne jàkk rek. Mm-hmm. xam ne ñi dem fi la leen fekk te dem fi leen bàyyi. Mm-hmm. di nuyu nag suma mag mbay jëy fay sang sanga birim bay keewa yaayow jaan maali bàyyi maa nga bàyyi maa ko bu ma jógee foofu nag ah may nuyu borom faar bi Youssou maa jigéen Ndour Baye Birane tubaarkàlla macha allah moo déchelé Pelikon ni di nuyu nag tubaarkàlla macha allah sama mag yi toog nga xam ne kee moom. su may wër mbay gi su ma ko gisul buntu kër gi laa koy fekk bu toog maa ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu kilifa diine yi. di nuyu kilifa aada yi di nuyu nag Youssou maa jigéen Ndour di ko jox wàccuwaayam di ñaan bés bii. di nuyu nag Ndiaga Ndour tubaarkàlla macha allah ndax kër gi dafa am ay ay patante ay patan ay guerrier fi nekk yoo xam ne Bouba Ndour ah Ndiaga maa ngi leen jox seen wàccuwaay ah di ñaan nag émission bi mus fee am waaye lii fi am tey tubaarkàlla macha allah Youssou rek ko mën a décroché. jërëjëf barke yonent bi. jërëjëf Abdou jërëjëf ci introduction bu rafet boobu léegi dañuy daal di jox kàddu gi nag koo xam ne moom itam mu nuyoo ki nga xam ni président Senghor moom la waxoon euh, wax ju am solo ja ni c'est le poète le plus doué de sa génération. Mm. kooku nag mooy le poète Amadou Lamine poète écrivain xanaa dégg ngeen Kamandalu xanaa dégg ngeen Mante des Aurores waaye xam ngeen téere bii ma yor aussi muy sengoor ma part d'homme muy koo xam ne li mu bind ci sengoor ak li nu bind ci moom ak li nga xam ne def na ko ci Arthur Rimbaud mu nekk poète bu mag boo xam ne Sénégal da koy sagoo fii ci réew mi ak ci biitum réew euh, monsieur Amadou Lamine Sall asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi maa ngi nuyu xam ne ñu ngi ci plateau bi man sama xol dafa fees oh là là oh, oh ah, lii nag lii nag yi tey. parce que li hmm. TFM def tey lu rëy la. Hmm. da ngeen ci gërëm di ci gërëm yu Ndour bien sûr di wax ne réew dafay gestu. Hmm. réew dafa war a am rétroviseur. héritage dañ ko war gestu. su ñu demee bay jéggi dex te mu ñu ñoo jéggi ñu gestu seet kan moo ñu mën a jégloo te Senghor bokk na yaakaar na ci ñi nga xam ne mu ne ñu jégloo dex bi ngeen def lu rafet li ngeen def lu rëy la du Sénégal rek moo leen di setaan tey ñëpp moo leen di setaan Senghor Senghor la yàlla moo ko def li mu ko def xam nga poète yi soo waxee poète sax nit ngi dañuy ree di wax ah ñooy nga di ay taalifkat lañ ñoom dañuy gént rek waaye ku gént ba taxaw ba ku gént ba taxawal réew <laughs> def ci lim ci def ba yéen tey ngeen toog fii di ko sant jërëjëf yal na leen ko yàlla fay ate Senghor de loo ko lebal mu fay la ko merci jërëjëf jërëjëf monsieur Amadou Lamine Sall jërëjëf euh, télévision Futur Média nga xam ni mooy miroir du Sénégal loolu xam ngeen ni euh, Cheikh Ibra Fall dafa wax ni rangooñ ak deret ak ñaq caaxaan du ko génne kooku dafay fils spirituel de Senghor bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon tey vice président fondation Léopold Sédar Senghor monsieur Amadou Lamine Sall jërëjëf ki ñu jox kàddu gi nag moom dafa doon koo xam ni moom itam dafa jege woon Senghor boo ko table Philippe ak sengoor loolu rek doyoon na waaye ñaar fukki at yoo xam ni chaque année da ngay dem Normandie vacances nekk ak président Senghor ànd ak sa famille loolu yaakaar naa ne yombul kooku mooy maître Boukounta Diallo di koo xam ne moom itam fils spirituel de Senghor maître salaamaaleykum. maaleykum salaam euh, maa ngi leen di fay. ah li ma dégg léegi sentir ko ci émission bi euh, tax na ma dolli yaakaar ci réew mi yaakaar ci réew mi comme ni ko Amadou Lamine Sall wax comme ni ko madame Penda Mbow waxee aussi rétroviseur dafa am solo te dafa am lu ñu rawee ñi ñu wër réew yi ñu wër boo demee ba xam ne ñii gënuloo leen fenn waaye am loo leen ëppale da nga war a laajte ba xam lu taxoon nga ëppale leen lii jafe-jafe yi ñu amoon bi ñuy am sunu indépendance dafa doon jafe-jafe yoo xam ne réew yëpp ko amoon ci Afrique ñu nekk fii ak réew mu ñuy wax Côte d'Ivoire à côté gis ngeen tey am na fu ma ko bindee ci benn livre bu ñu ma préfacé may wax ne pour la construction d'une nation dañu amoon jafe-jafe parce que ethnie yi dafa bari woon tey boo demee Côte d'Ivoire ñu ngi si près de soixante-dix ethnies Sénégal ñun seize ethnies loolu sax moo ñu sauvé ba nga xam ne soixante-dix ethnies yooyu pour nga dajale créer li ñuy wax nation te loolu la waroon def dafay am ay jafe-jafe bu dul culture bi à la base jëluñu jariñoo ko ñële nag ba ñu jógee dañu am li ñuy wax loolu laa wax ne y un compromis d'ethnie mais nation si boppam ñëwagul compromis la compromis d'ethnie boobu y avait le père de la nation le père fondateur mais ba mu fi jógee génne àddina le compromis d'ethnie bi sauté muy wane ne pour am nation war nga dépasser compromis d'ethnie pour dépasser ko Sénégal chance boobu la am si ñooñu ñëpp c'est-à-dire dañ ne dinañu construire nation sur la base des ethnies yi nga xam ne ñu ngi doon exister mais dinañu fexe également dem plus loin ba construire un état de droit et état de droit boobu tey moo indi différence bi entre ñun ak ñi wër ñëpp ndaxte stabilité bi ñu am tey te ñëpp bugg ko am Sénégal amul li nga gis ay coup d'état yu dul jeex Sénégal tey reyante yi nga gis ak guerre civile yi am si dëkk yooyu yëpp ñu traverser ñun amuñu ko mm. dafa fekk ne état de droit bi ñu construiroon moo ñu jox stabilité bi nga xam ne mën nañu fonder une économie solide te loolu nag ki ko defoon en visionnaire di le président Senghor dafa articuler action principalement sur deux choses essentielles la culture et l'homme mu jëkk wax ne l'homme est au début et à la fin de tout développement mu tegaat si ne aussi la culture au début à la fin la culture nit ñi ne ah waay ñu ñuy wax économie ak lu ñu lekk nga naan ñu culture waaye culture boobu mooy la formation de base bi permettre un état mu développer ndaxte boo gisee tey développement bi am dans le monde nga gis Chine bu du woon seen révolution culturelle seen économie fi mu toll tey du fa toll révolution culturelle boobu moo leen lancé jox leen xelaat yoo xam ne tey yóbbu na Chine fa mu nekk yeneen dëkk yi ngeen xam mun naa si citer ñu bari looloo leen ko jox ku bëgg a dem da ngay commencer ci sa culture xam sa bopp ubbeeku ci ñeneen ku xamul sa bopp boo ubbeekoo sànku te mu tax mu koy wax ouverture et enracinement donc enracinement ouverture mais nag loolu dafa doon ay théories yoo xam ne ku ko gëstuwul bu bari doo ci mën a sori waaye dégg naa la léegi nga wax ne ah tey nag ñu xam tukulóor yi ak séeréer yi ah kan ak si mën sa morom mais xam nga Senghor si boppam en homme de culture mm. li nga xam ne tey boo ko waxee taal dëkk mm. indi fa guerre civile daf ko ironiser mm. ironiser ko ba nga xam ne li nar a tax nit jóg rey moroomam <coughs> Senghor dina la jox xam-xam ak culture boo xam ne di nga ko mën a positiver te fekke naa loolu mu tranché ko benn bés Normandie ñu toog benn professeur alpulaar ñëw seet si ko ah tooñ ko ba sonn séeréer jaamu tukkuleur séeréer jaamutu mu noppi rek waaye ba muy dem mu nga ko lii ne ko ah mais vous savez nous les séeréer nous sommes devenus fauchés depuis que le prix du toucouleur sur le marché de l'esclavage a baissé <laughs> kooku xam place dellu waaye gis nga wax ko si xam-xam si rafet boo rafet ay boo xam ne wax dëgg nit ki noonu la ñuy kii ak le cousinage donc bi nga xam ne am na sunu biir wax dëgg bu ñu duggee si loolu yëpp lii début bi rek la pour xamal leen ne ah Sénégal tey li ñu distinguer des autres mooy pour la formation de l'homme Mmh. On parti de la culture. On est parti de la connaissance de l'homme. Au début, c'est l'homme, à la fin, c'est l'homme. Mm. tey nag boo ne l'homme ñu ne woo oh, tu es trop humain tu es trop sensible nit ñi seetatuñu loolu la ñuy seet l'homme humain dañuy yaakaar ne faiblesse la sax. Mm. kenn jéematu ko nañu ne na nga doon guerrier na nga doon lii ba yow la nga doon nga bañ ko moo tax it aussi doo mën a créer lu nit yaakaar si yow. Mm. kon nag loolu. nañ ko fàttaliku bu baax xam ne daa leen tey état de droit nañu gërëm yàlla mooy sunu atu ba ñu demee ba ñëpp am li nga xam ne am nañ ko construire ay pont il faut baa ñu jóg na moom dana day construire ay autoroute ay pont Senghor ne man je vais construire les mentalités dinaa construire bopp yi former des sénégalais des cadres yoo xam ne danañ mën a téye réew mi ëllëg moo waraloon pour la première fois ñun ñu yóbbu sunuy Euh, militaire dans les grandes écoles militaires de la France ni États-Unis ba nga xam ne seen xel sax ils ont un esprit républicain boo xam ne du leen jox sax xalaat ñuy séentu nguur nuñ koy jëlee mu yóbbu tamit ñeneen ñu jàng ba tey sur le plan international organisation internationale yi nga daan gis yëpp sénégalais yi ñoo fa ëpp ba tey grenier boobu ñu amoon te muy commencé wàññeeku. war na ñu seetaat lu ñuy defaat. ba fonctionnaires internationaux yooyu yëpp feesoon fépp. Mhm. li ko maye woon mooy loolu. ña doon tabax nag ay pont ay autoroute mhm. tabaxuñu nit ñi. Mhm. nit ñooñu jóg nañu reyante. yàq pont yeeg autoroute yi taal yëpp. kon nag loolu aussi image la bu ma bëggoon a wane. si différence bi jërëjëf jërëjëf metre yaakaar naa ni contexte bi campé nañ ko. Euh, loolu la professeur Penda Mbow indi loolu la. Amadou Lamine Sall le grand poète indi l'autre le maître Boucounta Diallo indi xam ngeen ni euh, la nation dañuy wax ni Kocc Barma bi ñu ko laajee nit lu mu war a gën a xam daf ni day xam boppam hmm. Senghor daf ni nit ñi nañ xam seen bopp ba pare boo xamul sa bopp loo am bu ñëwee day saaw loo am hmm. boo ñëwee day yàqu waaye nit ku xam boppam kenn du ko fekk ci loo xam ne dañ koy yedd looloo indi far yooyu yeddaate hmm. waaye nag xam ngeen ni Senghor bi mu ñëwee en tant que catholique quatre vingt pour cent de musulmans nga jiite leen ca dara jigul lépp nekk ci jàmm lépp àndandoo loolu dafa am lu ko waral mooy li nga xam ne moom la Senghor boole ñëpp bokk ndey ñëpp bokk bàyyi yëkkatindoo tegandoo Pape Samba nga indil ñu benn kilifa goo xam ne moom itam yaakaar naa ne ci lu mel ni la indee Senghor nga ñëw ci est un pays à majorité musulmane. Autour de la mosquée, le vendredi, en pleine rue, des milliers de fidèles se prosternent à l'appel du muezzin. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette terre de l'islam que son président Léopold Senghor soit un catholique convaincu. Ses adversaires essaient d'ailleurs d'attiser le fanatisme religieux des musulmans contre cet infidèle. Leur slogan, c'est la croisade du croissant contre la croix. D'ailleurs, un des plus fidèles supporters du président Senghor n'est-il pas le pape des musulmans d'Afrique noire El Hajj Falilou Mbake

Il est maintenant On dit au Sénégal que le calife des Mourides est le supporter numéro un du président Sangor. Or, c'est étrange, un calife musulman supporter d'un président catholique. Ah. ñu ñu njëkkoon pour le khalife euh, la politique ne se mêle pas à la religion. Il est musulman, il est le chef de la plus grande confrérie religieuse en Afrique noire, musulmane comme vous dites, et le président Senghor évidemment est catholique. Mais le khalife euh, ne s'intéresse pas au président Senghor parce qu'il est catholique, il s'intéresse à lui surtout parce qu'il pense que dans le domaine de la conduite des affaires du pays, le président Senghor est le plus apte, le plus capable. Et pour le Khalif, les intérêts supérieurs du Sénégal sont au-dessus de toute considération. Évidemment, nous n'allons pas demander au président Senghor de diriger les affaires spirituelles des musulmans. Ce qu'on demande au président Senghor, ce n'est pas sa religion, c'est de conduire le Sénégal sur la voie du progrès, de la paix et de la liberté. Et surtout, tout cela dans le respect des valeurs traditionnelles et spirituelles. Euh, jërëjëf kooku Alaaji Fàllu Mbàkke ibn Xaadimal Moustapha témoignage bu mag boobu nga xam ni def ko ne ko ci président Senghor secrétaire am Dramé toog noonu di traduire en français ñuy répondre professeur Penda en tant qu'historienne xam nga ni ci àddina Euh, président catholique euh, catholique jiite quatre vingt pour cent de musulmans nga gis euh, sëriñ si rawatina ñi nga xam ni ay xalifa lañu dem ba nga xam ni nee nañu ñoom ñooy supporter numéro un dégg nga ni nga ko waxee loolu yaakaar naa ni bariwul ci àddina professeur. balaa may tontu ci loolu dafay am lu may bëgg a yokk tuuti rek ci li maître Boukounta wax sànq. Hmm. ci ni Senghor forger nation bi. Hmm. fa xam nga des fois am benn théorie bu am solo ci Senghor ñoom ñi ñëpp mën nañ ko seede mooy théorie sur le métissage bu ko nit ñiy dégg dañuy defe ni métissage nit ku weex jaxasoo deret ak nit ku ñuul déedéet du loolu mm. métissage fi ko Senghor jëlee dëgg-dëgg mooy ethnie groupe ethnique yi ni ñuy jaxasoo ni ñuy duggante ak ni ñuy génnante noonu la ko Senghor doon jële fu la gis dina la ni ndax yow tukkuleer nga ndax yow tukkuleer nga ni Abdou Diouf nekke séeréer parce que tous les jours mi ngi seet ne yow doo séeréer rek wala doo tukkuleer rek waaye am nga foo jaxasoo te feeñ na ci sa yaram feeñ na ci say trekki ma sa mën nga ko gis le matin mu wax la ko nga daje waat ak moom ci saan gi mu wax la ko nga daje ak moom ci guddi gi mu wax la ko parce que me message boobu ci la forger doon forger nation sénégalaise mën na am dañ ci dégluwaat. ma dellu si nag léegi ci mbirum sëriñ si. dëgg la xalif généraux yi mag yi lañuy ñuy gën a feeñal seen relation ak Senghor waaye ñëpp xam nañu diggante sengor ak ku mel ni Seydou Nourou Tall. tey boo demee. ci les les grands marabouts l'ouvrage consacré aux grands marabouts am na chapitre boo xam dañ ko consacré relation Senghor ak Seydou Nourou Tall amul woon ku mu gënoona a déggool dugganteel ci sur le plan spirituel ci wàllu mystique wala dara ku raw Thierno Seydou Nourou Tall mm. amoon na keneen tamit koo xam ne dañ koy fàtte mais amoon na jamono mu nekkoon ak Senghor bu baax <coughs> mooy Cheikh Tayour Doucouré mm. ñooñu tamit bu ñu leen fàtte parce que ñooñu itam ci ñi ko doon xelal ci wàllu diine ak ni muy war a jëflanteeg chef religieux yi ñooñu ci la ñu bokk te loolu dafa am solo ci bi ñuy tabax nation dama dem Washington ci benn think tank def fa juróom benn weer keroog bi may def sama présentation dama ko def ci affaire sunu réew nu mu tëddee ci diine ji nu mu duggante ak naka lañu ñu amee président boo xam ne nii dafa am dafa nekk catholique jullit yi jàppale ko ba nga xam ne Sénégal li doon tax ñuy fal président nekk woon diineem waaye xam-xam ba mu amoon yar ba mu amoon comportement ba mu amoon ak vision bi mu amoon ci Sénégal waa dégg nga c'est léegi nag li ñu defee loolu jour ba may def présentation bi ñëpp ñëw institution yi nekkoon Washington yëpp ba ci ay banque mondiale yëpp ba ma présenté Sénégal ni mu doxee ba ñu amee indépendance ba foofu dañuy jël ne ñoom foofu institut pour la paix ni moom Sénégal li ñuy jël comme modèle pour résoudre crise bi nekk Soudan c'est parce que Sénégal mu ñu ne li mu am fii ci Sénégal mosul am fenn kilifa diine yi muy tey lim nañu wane nañu Serigne Fallou Mbacké waaye noonu la amoon relation profonde ak quelqu'un comme Serigne Babacar Sy danañ ci ñëw léegi professeur léegi danañ ci ñëw tegal sa baaraam parce que danañ ci dellu si waat waaw am na yeneen vidéo mais maître Boukounta Diallo mm. euh, Serigne Fallou li mu wax ci ci ci président Senghor oui euh, réalité la que ne bi mu fi ñëwee dafa doon mbir mu doy waar mais Serigne si ñoo ko jëkk jàppale mm. te li ko waral mooy yaram Mmh. li ko waral mooy yaram c'est très important madame Penda Mbow wax na ko léegi yaram mais tamit ngëmam li mu nekkoon daf ko gëm ndaxte li mu wax ci Serigne Seydou Nourou ah ku fàttali amul 18h30 bu jot boo xam ne pale sengoor bu jógee bureau du dem pour julli day woo cardinal Thiandoum chauffeur bi dem jëli ko Diallo Baylo à l'époque chauffeur am dem jëli ko indi ko pale yéegal ko ci kaw muy prier moom chauffeur bi dellu dem jëli Serigne Seydou Nourou Tall mu nekk ci suufu pale bi rez-de-chaussée bi moom tamit di prier ñaar ñi ku nekk di prier ba waxtu bi passé bu paree chauffeur bi jëlaa ku nekk yóbbu la. c'est fort vraiment hmm. kon nag hmm. loolu wonoon na ne place bi mu joxoon ñooñu. Hmm. place bu doy waar la comme na mu ko doon defee di dem tabaski si mosquée yi di taxaw pour julli nit ñi julli mu toog si biir mosquée bi li ko tere li ko tax sax loolu amatul mooy tentative d'attentat boobu fa amoon moo arrêté mbir moom mhm. kon nag loolu moo doon pour confirmer li mu wax mhm. effectivement pratique u président Senghor exactement euh, euh, d'ailleurs loolu moo tax euh, du rek Serigne Fallou moo wax ci moom mais am na beneen kilifa diine boo xam ni sur le plan des idées xëy na amoon nañu ñoom ñaar benn jàppante waaye am na cofeel gu doxoon seen diggante goo xam ni yaakaar naa ni Pape Samba ñu indi élément boobu nga xam ni aussi euh, kilifa gu mag googu témoigné na ko ci sengoor muy Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum. kilifa yi fi jaar yépp ñu baax lañ ñu baax lañ man ki ma ci gënoon miin mooy Senghor waaye moom ku baax la daan nañu xuloo nag xuloo yu day nag yàlla xam na ko. ci wàllu tubaab sax dama ko daan poussé ci muy wax ay mots yu xaw nekk yu mbedd noonu mu di ko bañ waaye damay fexe ba mu nangu ko walaay ndeysaan léeg-léeg ma bu dee jëw benn xaritam ma ni ko mais je le mais il est dingue bu ko defee mu ree ba tey ni ma mais le mot d'anticipation yi sax waaye doo wóoloo lu dul rek comme dégg na ko ñaar yoon ñett su ma ñëwee bu mere kenn ni ma yile daan <laughs> wallaay ndeysaan dama ko jiy poussé toujours wala mu wax ma kenn ma ne ko mais il est complètement wallaay ndeysaan bu ko defee nga yëg benn espèce tic bu mu def noonu waaye bu beneen ba ñëw mu ne may yëg complètement toqué waaw mag mu baax la xam nga xam nga lii euh, au delà de la pédagogie cofeel gi nga xam ni moo am xoola Serigne Cheikh enthousiasme bi muy waxee nga xam ni Senghor daal euh, nit la koo xam ni ku doy waar la nit la koo xam ni yaakaar naa ni benn wax sax Euh, euh, benn benn benn bis du jeexal waxam. ndax lépp lu ñu wax ci Senghor yaakaar naa ni Amadou Lamine Sall danañ wax ni buñ ci boole woon nangam Senghor dégg li sëñ Cheikh wax. waaw man li ma bëgg laajte mooy réew mu mel nii Serigne Fallou Serigne Cheikh Senghor ak li ngeen dégg. réew mu mel nii fu mu jëm. fu dul ci loo xam ne lu baax rek la amul kenn ku ko mën a yàq mm-hmm. yi ku ko dégg ak ku ko gis jarul ngay tiit man de tiituma man tiituma ci Sénégal parce que soo seetee démb seet ñi ñii di wax nga xam ne am na ñu fi bàyyi waaye ngeen lañ lañ topp loolu dañu mm-hmm. topp loolu te buñ ko fàtte bu ñu tiit bu ñu dara tiit loolu mm-hmm. Senghor defar na yëpp Euh, Serigne Fallou defar na yëpp Serigne yi defar na yëpp. bu kenn tàggale président yi ak Serigne si. bu ko kenn nangu. réew mi ñoo ko bokk. Hmm. ate ñoom ay président lañ foofu ñu toog. la de. réew mi réew mu neex la. Hmm. bu bu ko kenn yàqal. su ma déggee ñuy wane ne eh, Senghor defu fi dara. Abdou Diouf defu fi dara Maître Wade defu fi dara Macky Sall defu fi dara waaye su fi si su ñëwee ñu deful dara peuple sénégalais bi moom lan la def. kon du ñoom peuple bi la. Mm-hmm. sénégalais yi la waaye du ñoom. ah su nekkee ñu ñëw ñu baaxuñu ah mais ku baax. Mm-hmm. kan moo baax. dañuy changer de d'élection bi bon. ñu feet nañ la tànnee président. waaye mm. loolu mënul nekk. ñooñu ñëpp mu ñu nekk ñoo xam ne du ay président yu baax. sénégalais ñoo leen élire man toujours damay wax ne président dama ko jox cërëm n'importe quel président. Mm. dama ko jox cërëm parce que soo ko joxul cërëm respecté woo sénégalais yi. Mm. parce que sénégalais ñoo ko élire. nañu def attention. président da nga ko jox cëram. parce que soo ko joxul cëram. mun nga sax bañ a bokk ak moom. waaye jox ko cëram respecté ko parce que soo ko respecté wul peuple sénégalais du nga respecté wul. jërëjëf Sall. Hmm. jërëjëf. Senghor nag. Senghor nag dafa nekk ni koo xam ne man de toujours su may wax ci moom sama xol dafay fees. Euh, dafa am ñetti yëf yu ma buggoon wax rapidement. Mhm. Euh, lii tubaab di wax sensibilité lii tubaab di wax raison ak lii tubaab di wax désir Senghor dafa boole woon yooyu benn bi mooy yërmande Senghor dafa amoon yërmande nit dafay am yërmande raison raison mooy lan mooy xel mooy nite mën a ràññee dëgg ak fen loolu mooy raison hmm. Senghor amoon na ko daf ko jiitaloon hmm. ak mbëggeel hmm. waaye mbëggeel lan moo ko gën a foo <laughs> bëgg sa réew bëgg sa peuple bëgg sa race ba créer benn concept négritude ñun ay nègre lañ duñu ay tubaab nañu seet fan lañu jóge jàpp ci li ñu am bu ñu kenn yëngal dëgg la muy am am na lu fi bàyyi de te toujours damay wax ne bi ñu Senghor wuutee ba léegi bi mu demee ba léegi dafa judduwaat Senghor mooy suñu visa hmm. jarul sax ñu wuti visa ci ambassade yi foo wàcc. ñu ne sénégalais nga waaw ñu ne ah ana Senghor. jërëjëf. Hmm. jërëjëf Amadou Lamine sal hmm. loolu mooy Sénégal loolu mooy sensu wëndeelu. Hmm. xool jukko yi. xool comportement yi. xool lépp lu rafet ci mag ñi. nga xam ni moom la ñuy wax héritage ñu xool nan la ko xale yi mën a amee tey jii. dëgg la xel mën naa bañ doon benn waaye xalaat yi na rafet. Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Mamadou Mbaye Garmi. loolu rekk moo tax wëndeelu jóg. laman tey dama dégg tey lu rëy ba pare foor lool xam naa ni daal léegi Adja Penda Mbow wax na ko ne xam-xam bi nga xam ne moom la Senghor def ba jaar fi mu jaar te teg ko ci culture ba boole réew mi mu defaat lu foor fexe ba tarixa yi nekk ci réew mi yépp ñépp nekk ay xaritam ni mu fonk Seydou Nourou noonu la fëgg bu Boubacar noonu la fëgg Sëriñ Fallu noonu la fekk maam li maam fexe ba ñooñu ñépp nekk ay xaritam yoo xam ne yile balaa jóg balaa wax dara ku ci nekk dina waxtaan ak yow ba ngeen tëgg seen kàddu ci benn mu doog ko doxal loolu loolu nag mu nekk loo xam ne lii lu rëy la. jërëjëf ku amul xam-xam mënuloo. déedéet te maa ngi lay wax dara. laman mm. mu defaat tamit lu rëy mm-hmm. bu dee génn ci réew mi. day fexe ba daje kàngami réew mi ñu nekk ay traditionnel mu ànd ak ñoom génn ak ñoom ànd ak ñoom bitim réew pour jaay culture réew. jërëjëf jërëjëf Mamadou Mbaye Garmi. Léopold Senghor kenn du moom. jërëjëf Mamadou Mbaye Garmi loolu rafet na waaye. <laughs> Euh, Lamane euh, Garmi loolu nga wax rafet na. Mm. looloo tax bi mu fi jógee Sénégal bàyyiwu ko. Mm. ndax kenn ku ne xam na ni bi mu nekkee version te Normandie. Mm. maa ngi ciy waxtaanak ak maître Boukounta jàllu démb rek. xam nga ni am na kilifa gu mag goo xam ni dem na ba Normandie. fekk sengoor toog wax ak moom ni ko duñu la bàyyi mukk loolu yaakaar naa ni Pape Samba il faut ñu indi ko diggante Senghor ak Sénégal toujours. dinañ wax dinañ waxtaan ci wolof. wax naa leen ko. ak ni nga toll ci Sénégal. Sénégal daal doo fàtte mukk waxtu bu nekk. yaa ngi xel. jërëjëf kooku mooy Serigne Moustapha Bassirou. ibn Serigne Bassirou ibn Khadimal Moustapha bokk Serigne ak sëñ Mountakha xalif général des Mourides lépp version la ko fekk te Normandie loolu yaakaar naa ni maître Boukounta Diallo euh, yaakaar naa ni cofeel la waaye na kóllëre la aussi. xam nga yar may na la lépp mais yar tamit dafa fekk culture mooy base bi boo sukkandikoo si culture di nga mën a ànd ak ñëpp donc kilifa diine yi yëpp mu àndaloon. ñu nangul ko loolu yar googu nangul ko lépp lu mu leen di ñaan lu mu leen di laaj dafa fekk yar bi moo moo lal lépp kon nag nañuy fàttaliku toujours que ne réew bu ñu buggee mu dox foog ñu dellu si ay valeur sunuy maam yi dañuy yar si valeur yooyu moom mu ñëw nañu waxuma jàng ngeen tubaab dëgg la mais li ma leen di jàngal du maa leen koy jàngal seen maam jàngal nañ leen ko ba pare dama leen koy fàttali ne jël leen ngeen fàttaliku ko foo leen nekk pour xam ne seen njegenaay seen gànnaay lépp mooy seen culture sa culture daan ku ko topp wax nga ko toutaleur ku ko topp doo réer bëggoon na trop métissage culturel boobu daf ko doon wax parce que tey métissage culturel fu mu am daf ma daan wax ne ma bukkunta boo buggee dégg dara mooy ne quand deux peuples se rencontrent ils se combattent mais il finissent toujours par se métisser. kon nag xeex bi dina metti lool waaye après dañuy mujje di sëyante seen biir. Sénégal li nga wax Penda ne moom dalay laaj lan nga man li ko gënoon a sunu diggante mooy li mu doon laa doon dafa doon wax ne j'ai trois quarts de sang séeréer et un quart de sang alpulaar man tamit. may wax ne j'ai trois quarts de sang séeréer et un quart de sang alpulaar et je suis de culture lébu mais loolu nag c'est le Sénégal parce que lébu du ethnie culture la kon nag man culture boobu ma boole kook loolu mooy Sénégal te loolu doon na loo xam ne ah nit ki bu ko amee rek am na richesse parce que diversité culturelle li koy indi mooy diversité ethnique aussi parce que fu ethnie yu bari culture yu bari te loolu richesse la boo xam ne bu ko nit gànnaayoo kenn mënu ko gaaw a daaneel. Sénégal nag loolu nañ si dellu nañuy dellu di xam sunu bopp pour bañ a xeeb sunu bopp nañuy dellu di xam sunu bopp pour xam sunu doole ñaar yooyu te buñ ko defee wax dëgg li si des moom li metre euh, li kii wax léegi euh, Amadou Lamine Sall kenn warul tiit si Sénégal xam nga ñan lañu tiit mm. ñi bëgg wéetal Sénégal si li mu doon. mooy ñi nga xam ne benn culture beneen la ñu am saaga wax lu bon yaradiku léegi ñu koy vénérer di ko honorer déedéet kooku ñooñu dañu bëgg a wéetal Sénégal parce que ñi nga xam ne leneen la ñu gëm ñoo ëpp waaye bu li ñu gëmee nekkatu fi bu fi nekkatul ñu toxu toog du nag parce que nekkatuñ fi ñu ngi fi mais dañ toxu ñooñu nag li ñu bëgg mooy wéetal Sénégal kon nag ñun doole bu ñu amoon bitim réew ñu ñuy dégg bu ñu demee jàkkaarlook yeneen réew yi jàkkaarlook tubaab yi li ñu daañu respecté du ay saaga ak xaste mais xam-xam bi ñu doon génne moo doon tax ñu naw ñu mujje bu ñu bañoon sax wala mu am un peu de racisme ñu mujje ne wax dëgg neexul ba neex waaye ñii ñooy waaj. jërëjëf kon nag loolu nañu fexe jël ko teg ko ci kaw encore. jërëjëf maître loolu mooy euh, discours bi nga xam ni euh, ku seetaan wëndeelu démb ak tey loolu nga fi fekk. Hmm. ay jikko yu rafet la ñuy xool. comportement la ñuy xool jël suñuy jukkoo xool jukko yu mag ñi waaye xool démb xool lañ fa mën a jëlee ndaamal gosaas danaan wax naan doon buur doon bu mi ca nite woo bañ doon buur bañ a doon bu mi ca nite moom ma ko gënal nit ak nite nag bokkul Senghor nite la daan jàngale ay valeur la daan jàngale professeur Penda mbaw yaakaar naa ni Senghor daal euh, mënees na cee nekk ba suba waaye kenn ku ne xam na ni jikko daal mooy doomu aadama man daal li ma retenir dama juddu màggaale Senghor nekk président ñuy dox waaye ñaari yëf amoon na joxoon na ko gëdd mooy culture mooy éducation Senghor mën nga ni biir université looloo doon tax sax xaj na intellectuel yu bari mu daan am ak ñoom ay jafe-jafe ay xuloo ñuy te boobu dafa doon dundal sax li may tuddee débat dans l'espace public Senghor université dafa mel ni moom moo doon recteur ba boo koy seet ba man bi may jàngi université Senghor loxoom ci biir surveillance ci biir université bi musu ko bàyyi pour moom dafa rôle professeur am boobu daf ko waroon a wone ba mu jeex waaw culture nag buñ koy wax li may ne culture mooy aura Sénégal culture mooy identité Sénégal kooku mën naa ni politique gu Senghor la. te politique gu Senghor boobu buñ ko tàqale ak li nga xam ni moo amoon ci intellectuel yi bi ñu génnee deuxième guerre mondiale ba Alioune Diop créé maison bi ñuy tuddee présence africaine Senghor ñoom Cheikh Anta ba ci ñoom Amady Aly Dieng dama leen tuddee génération présence africaine. Mm. ñu def ñaari conférence yu mag. ay conférence intellectuelle benn bi Paris lañ ko defe woon benn bi Rome waaye li ci amoon solo ci man ci gàttal mooy kenn ci ñoom nekk na président kenn kooku nag ba mu nekkee président la ñu mébatoon kooku moo ki nga xam ni moo ko war a sottal moo tax bi Senghor ñëwee dafa dañu am indépendance 1960 ñu commencé nag xalaat la ñu doon xalaat ci seen conférence yooyu naka lañ koy defee muy premier festival mondial des arts nègres mais premier festival mondial des arts nègres boobu balaa muy am dafa am fenn fee boo xam ne duma ko dama koy retenir dama ko nekkaale xale. mooy li Senghor jëkk a def kooku ah Maurice Senghor Senghor la ko demandé woon. mu wër Sénégal ba mu daj fu woykat ne fu tëggkat ne fu mbandkat ne mm. fu taaxuraankat ne mm. seet nañ la xool sa mënin mu tànn ci ñi mu yaakaar ni ci jamono jooju ñoo ci gënoon mm. créer ensemble instrumental du Sénégal ensemble instrumental boobu nag moo doon symboliser dara ci folklore Sénégal professeur Penda yaa euh, y le président Moustapha Niass ah qui veut intervenir président de l'Assemblée nationale ancien directeur de cabinet du président Senghor président de la fondation Léopold Sédar Senghor. yàq nga sama waxtaan euh, asalaamaaleykum mag ji moom bu bu bëggee wax rek il faut ma maaleykum salaam. Euh, président ñi ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di ci xol bu kontaan ci sa dugg ci émission wëndeelu démb ak tey consacrée au président Léopold Sédar sengoor yow nag ngay koo xam ni da nga àndoon ak moom ngeen yàgg lool. waaye président li lay jëkk a laaj rek mooy yow ak président sengoor ni ngeen tegee état Sénégal lañ bëggoon nga dellu suñu ci tuuti. waaw nga may ma ma tàmbali gërëm yàlla suñu borom ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma gërëm itam sama rakk sama am di jàmb muy Youssou Ndour ndax depuis démb la ma woo bi ma jullee timis ba pare wax ma affaire émission bii bi ma yëgal itam ne ñu ma jege jege man nii muy maître Boucounta Diallo ak Amadou Lamine Sall yi nga xam ne ñoo bokk conseil d'administration fondation Senghor bi ma jiite dinañ nekk ci émission bi mu may ñaan itam ndax man nañ ma jot sama kër pour ma joxe sama xalaat ci lii hmm. ma nuyu ko moom Youssou wax ko itam merci pour émission bii ngeen def consacré ko président Léopold Sédar Senghor man bi may xam président Léopold Sédar Senghor fukki at ak juróom-ñaar la am 1957 ba ma nekk seconde lycée fédéral bu de Saint-Louis ma nekk ci gannaawam nekk ci partem ànd ak kook sutura nag wutuma dara yàkkamtiwuma dara bala ma daan seen sax dafay xëy na mu seet seetaat ndax daanuma nekk ci angle de man li ma intéressé woon rek mooy nekk ak moom di jàng ci moom di seet naka lay doxale ba décembre 1980 le 31 décembre mu quitté ci pouvoir bi boobu maa nekk ministre affaires étrangères am mu ngi ma nommé nag directeur du cabinet le 4 mars 1970 ma ne mu ma nommé le 4 mars directeur de cabinet toog lu mat juróom-ñeenti at après mu def ma ministre affaires étrangères ba ma defee ministre urbain ba pare temps boobu sengoor rarement lay tukki te ànduma ak moom. xanaa ma feebar. mais fu mu dem ci àddina bi yóbbu na ma lu muy wax danaa ko fekkee lu muy xelaat danaa ko fekkee lu muy liggéey dana ma ca boole pour jàngal ma liggéey bon kooku man mënuma ko fay lu mooy dugal ko ci sama xol mu nekk sama baay nekk sama kilifa. nekk suma lii bukkante wax ak Amadou Lamine Sall wax ak professeur Penda Mbow wax tekki dara dafa yombul ndax Senghor était un homme complet c'était la totalité du savoir de la science de la culture le gardien des règles de bienséance et de l'ouverture d'esprit un homme de générosité qui était ouvert à tous les pollens comme il le disait dans ses poèmes chrétien buy respecté musulman yi chrétien yi buy boole musulman li muy def buy xalaat dana leen xalaatale ñoom ñoom ñu ànd loolu moo tax Sénégal nangu ko mm. bépp bu mu jàppee moom ci boppam mu ngi dem loolu de mën naa ko wax ci président Senghor ah ñun ñu fi bàyyi nag ah, ñu ngi yore fondation bi du ko réglé la fay xew yëpp ñu koy réglé conseil d'administration presque tous les deux mois ñu am dajee amul bés bu ñu dul liggéey di xalaat ci fondation bi ak Gérard Boussier ba nga xam ne nekkoon na conseil nekk ba français hmm. man ak Boussier la Senghor joxoon kayit boobu mujj bind waaye mu ngi ko bind 96 pour bu ko yàlla moomee moom nañ koy di Dakar waaye bu yàlla moomee soxlaam nañ leen ñoom ñett nañ fexe yóbbu leen ci kayit boobu yónnee naa koy sundur tey à 19 heures tey jii lettre boobu mosul génn kenn xamu ko ba madame Senghor gaañoo keroog laa ko mu njëkk génnee jox ko famille jox leen ci copie yónnee naa ci Youssou Ndour ñaari copie tey moo ko bind ak loxoom en 1996 le 9 octobre bu 90e anniversaire am ah loolu de mën naa ko wax lettre baa ngi nii. Hmm. président président lettre bi man ak Gérard Bozier la ko jox. joxu ko keneen ku mooy ñun ñaar te lettre bi kenn mosu ko gis tant que madame Senghor kaañuwul mu ne mu ne nañ ko yóbbu dañ ko yóbbu Joal. famille am nag daje nañu alhamdulilah rabbi alamina descendant yi descendant jóge yi daje nañu. bi ñu jël disposition ak fondation bi pour ñu yóbbu Senghor soxnaam ak doomam fële ca Maama Géej ca Joal bu neexee yàlla. Euh, président. waaw ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci exclusivité boobu nga xam ni moom nga defal télévision Futur Média parce que lii mi ngi doog a am. Hmm. waaye waaye mënu jox yu sunduur teel laa ko jox teel laa ko yónnee jërëjëf jërëjëf Niass mais mënuñu laa am ca waxoo ñaari baat rek ci organisation ak méthode ndax ku wax Senghor wax président Moustapha Niass wax organisation wax méthode. man de Senghor yàlla may na ma privilège ak chance ma xam ko ba ma amee 17 ans ba bu may am baccalauréat 19 ans ba bu may paree samay jàng ba ba ma génnee école nationale d' administration def samay stage France ba dellusi si moom moo ma nommé directeur de l' information et de la presse le 14 mai 1968 ma toog fa un an et demi mu jël ma teg ma ci wetam. ba bu muy démissionné bi nga xamee ne remplacé ma à la tête du cabinet fekk am naa fa juróom-ñeenti at ci lu ma jox urbanisement am fa un an mu ne ma ah bëggoon naa nga def lu bari de commencé woon nga waaye nag dama soxla ku mu mulu koo xam ne bu mooy man moo tax ma lay yóbbu affaire étrangère noonu la ma yóbbu affaire étrangère ma am fa juróom benn at génn dem dans le privé 9 ans président Abdou Diouf delloo siwaat ma affaire étrangère ba 1998 bi may génn ma jëlaat samay affaire privée président Senghor organisation et méthode moom modèle la ci woon cinq heures du matin la daan yeew yeew def gymnastique une demi-heure pare jël caféem ma nga ci bureau à sept heures bureau boobu mooy bi borom ñetti palais neuf heures huit fa daan jógee dem dem ci bureau bi nekk ci bâtiment administratif bi treize heures kenn mënul fexe Senghor passé treize heures ci liggéey bu demee na këram añ jël caféem def sieste une demi-heure du ko passé deux heures et demie pile ma nga bureau ba sept bu sept heures ñibbi na bu yeggee bu reeree ma nga jël parapheur yi di liggéey ba heure bu mu amee bu mu bu mu bëggee nelaw mu dem nelaw Senghor daanu def rien au hasard organisation et méthode bureau organisation méthode ba mu koy créé ñu créé la direction par les objectifs mu ci gérer administration moom ab premier ministre am attention loolu moo fi nekk ba tey organisation et méthode la ngay def nga xalaat ko bala nga koy tàmbali nga xam fa ngay juum ak la nga fay fekk wala la nga yaa ñaar yàlla fekk ko fa nga liggéey ko ba yegg ca bu yeggee doo toog nelaw da ngay jëlaat beneen yoon nga juumat yeneen ci objectif ak yeneen méthode nga dem ca loolu loolu mooy Senghor moo tax li fi bàyyi bàyyi na fi état bàyyi na fi parti bàyyi na fi méthode de travail bàyyi na fi ay idée et littéral boo xam ne ñun fondation Senghor ñu ngi koy toppatoo guddi bëccëg l'œuvre philosophique littéraire poétique lépp lu mos a def ñun ñu fondation Senghor ñoo koy toppatoo tey te ma wax ne président Macky Sall mu ngi ciy dimbale guddi ak bëccëg wax dëgg yàlla mu ngi ciy dimbale. jërëjëf jërëjëf jërëjëf président. waaw kañ jërë ngeen jëf. jërëjëf jëf yéen itam jërëjëf jërëjëf jërëjëf président euh, kàddu yi rafet na trop léegi nag Mbaye Dièye Euh, dañu bëggoon nga nga introduire Aïda Mbaye ndax kenn ku nekk xam na sa diggante ak suñu yaay Yandé Codou sa diggante ak président yu Ndour ngeen ànd tukki loolu yaakaar naa ni mbay Dièye ñu may la nga ñëw ci nga introduire Aïda jërëjëf la mat kontaan naa amati naa contentement tey wax naan émission wëndeelu daal mi ngi wën wëndeelu ci mémoire yi mi ngi wëndeelu it ci àdduna ndax lii am tey ah émission bu ne jaar na fi waaye bu tey gi ah dafa naa ne lalal nañ ko sëru rabal la mag ñi daan wax wala sëru dënk professeur Sall jërëjëf ci leeral yi wax nga dëgg sànq dugg nga ci yar ñu am luñ ci jàngat dëgg la waaye ki ñuy waxtaanee tey nag moo waral loolu met bu kunta moom damay def saa yi ma ko gisee dama naan lu sapeur <laughs> seet sekat bi laa koy tuddee tout le temps. ñoo bokk euh, face. wallaay dëgg la ñoo bokk face et boo gisee kilifa yi toog tey tey ay bibliothèque rek ñoo toog foofu. moo tax nag sama toogaay bi fii tey ma am ci contentement. ki génn léegi di El Hadji Moustapha Niass. wallaay mooy Sénégal. Mm. mooy Sénégal. Euh, moom mooy réew mi. ku fi jaar ku ne xam-xamam dem na ci yow tey tamit mu ànd ak dal rek nag tekk ak tey ah la mag fii ma toog tey mhm. ñi ma dendal li may wax sànq naan tey eh, gisuma sunu xarit ba Pape Ngom eh, Babacar ak Ndella soxnaam waaye xam naa tey seen salon boo demee eh, pousse nañ fauteuil yëpp bi bi ay da yëngoo sànq ak sabar yi parce que séeréer dafa gëfu dafa gëm culture président Senghor bi mu fi jógee le ballet national gëj tukki mhm. tukki. 18 mois dëgg dëgg. ñoom rek ñoo daan tukki 18 mois. Mhm. je me rappelle. bon année ba ma juddoo. te la sama bàyyi daal di dem. ànd ak Sorano ak El Hadj Doudou Ndiaye Rose ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. ak sunu baay bii di nga xam ne moo jur Alioune Thiam Ekon. di El Hadj Mor Thiam. ci la ensemble instrumental. traditionnel lyrique gëj a yëngatu. Senghor bëggoon culture moo tax fii may teg sama baaraam tey ñu ànd ak sunu yaay ja ajaratu yaande koy du seen ak Aïda mii doomam ak Youssou Ndour ak Cheikh bi ñuy dem ñi ngi naan ndax soxna si dina yegg li tournée bi parce que hiver la woon Youssou ne ma dana ko yeggali de ñuy ànd ak moom di dem di dem di dem di dem ba tournée ba jeex yusu ne ma lu ma la waxoon sunu borom buy def ci yow day def ci yow mu nekkoon nag koo xam ni ah président Senghor mi ñuy waxtaanee tey doomu yaay njilaan bi daawul dem fenn àndul ak moom ayda sa yaay ji moo la nàmpal toqantal def li mu def ci yow may wax lenn balaa ngaa woy lii yéen rek ko am mbaar mbëpp mbëfër njolli te du lu déggoo seen biir. du ñu xoolante. boo déggee di nga dégg quatre voix yu différents yu bokkul. Aïda. ah Mbaye Gueye Faye dama kontaan ci li nga wax ndax Youssou Ndour Youssou Élément Ndour dafa jàpp sama waajur wa di yandi koddu yal ko yàlla xaraay jëna maak ñu ñu ànd ci joolooli bi wallaay joolooli ak seexloo ñu am fa weer ak juróomi fan. Ah, waaw di yéeg di wàcc rek. ñu nga njëkk a wàcc Rome. da koy fàttali. la Rome lañ njëkk a wàcc. Italie. waaw Genève doog a jàll us de tour rek ñun. ba bi ñuy dem Marseille. ñu dugg ci eh, géej gi. ma jooy. ndeysaan sama ne ma looy jooy ma ko yaa ñu nar a fanaan ci ndox mi yu su yóbbu ci ndox mi ñu fanaan ci <laughs> wallaay mu ree wallaay ma te ñemewu fi ma ko ñeme naa ndax yaa ngi feek man te maag yow fi ne ñeme naa du ma ragal dara déedéet yu su ñëw dégg ko ñëw yéeg ñëw fekk ñu fa ca néeg ba ne ma ay da dangaa ragal sa yaay ragalul ngay ragal ma ko ragalatuma dara boobu ñu ngi jël bateau bi di traversé ma ko ragalatuma dara booba ñuy jël bateau bi di traversé waaw waaw su ko defee président Moustapha Niasse ta ñu ala ga ina ko mbalori ta doomi ñay du ma sigilim Moustapha Niasse noy na la doomi ñay bu réewi e ñasi président Moustapha Niass Niass Gumba Abdoulaye président ak Senghor moo yóbbu woon ñaandi ko du Normandie mu seeti Senghor xole man fa yaakaan yey yaakaanoon di maa jooxo daan ma nga siga Senghor kor joore le we yaa ñilaanoy kor joor yaa liggéey Sénégal korjoore i lewo yaañ i laan mbaaxum lewo jogo i seengoor samaam jogo jiye moo reyoon ñay wi tijirool jogo jiye seengoor yeey fo njooy ne jongoor yeey korjoor Léopold Sédar lay woy ba jobi yaa kaba Léopold Sédar Senghor suma lay woy ba jobi yaa kaba duma son duma tay te yaɗde ko doy sama yaay demba de fa séeréer waa mbisaan biram biram lakel faamoon demba de fa séeréer waa mbisaan xaamoon yaande ko du ko du seengo rey borom yaay yu baax séer ndawe ki ma Malick Faye malik ko nde ɓongen a ndaar malik ko nde ɓongen a joyen moƴi geeri ayda malik fayi ladde mbak salinguer mbafay guna mbak jofi mam seɗya koy fey on naɗongana wagan kuɓas ha ndian fala sub coro toma xa jokun biram fatma xa mbiɗimak ndoma mbuur to jaaɓe yey a ndak ko ndoma mbuus malik fayi waay mboo faru leen ma woyal Youssou Ndour yi Youssou Ndour Youssou Élément Ndour Youssou Élément Ndour Mam Mari Seenay sa ndey soxna mu bay sa yaay Youssou ganaar bugul mat Sédar Senghor. dama ciy kontaan ndax Léopold Sédar Senghor. Hmm. yàlla moo ko booleeg yande ko du ci aras. li tax ma wax loolu Léopold Sédar Senghor dafa dem Gosaas booba mu ngi wut réew mi mu am fa mitin mu ne dem leen oo li ma waa somb booba sama yaay di ànd ba janam ñi laa jóob sama yaay feccikat la woon bu dendeek bàjjanam hmm. bu yooyu ba ci yàgg mu jóg fecc ci géej bu ñëw toogaat ci wetam di woy kon moom fecc la commencé waaw Léon Paul Sédar bi mu gisee sama yaay woy ba pare fecc dem toogaat di woy mu yónni gendarme bi nekkoo ko ool ma ndaw sale hmm. sama yaay ñëw sukk ci wetam xam nga looy def rek yar ak teggin daf cee baax mu sukk ci wetam mu ne ko dama bëgg nga dem kër euh, Père Senghor magam yi nekkoon foofu Gosaas nga may ma ndox ma naan sama yaay daw ci yaa arrêt arrêt Camara jabari Père Senghor mu ne ko yaa arrêt gan gan nekk fale nee na nga may ko ndox mu naan ma yóbbul ko ko mu jël benn carafe vert xam nga galaas a ngi njëkke woon ci euh, loolu ñuy dugal ci tirwaal yi mu mel ni ay bekk suukar mu dindi ko def ko ci biir karaaf euh, bi ba mu fees mu abal ko torson mu muur ko bak lay wax bak la bëgg wax sama yaay ñëw sama yaay ñëw ba ci wetam mhm. mu sukk ndox mi mu naan ba pare ba man sama yaay naan ca ñu may ci ndox may ci ndox mu tuuroo ko déggal loolu mu ndox mu jeex bi ndox mi jeexee mu ne yóbbul karaaf bi sama yaay daw jox yaa arrêté karaaf bi ak torson bi comme yóbbu woon na yeneen yére te yére yaa ngi siit mu dindi ko fi ñu ko dalaloon ci néeg bi mu ko dalaloon kenn gisu ko hmm. mu yëkkati matelas bi nëbbu foofa yére yi solaat beneen complète dugg si ci géew bi keroog la ñu jàppante mook Léopold Sédar Senghor benn muy gaañu sama yaay woy ko ba yóbbu ko beleer maak moom waaw ba léegi asanjamaar yey sanjamaar alaayu xay kor joor yey la woyaa ñilaan baaxum منو لالي وغادب يلير ياغو لو بودي لو غادب يلير زيغو Presida jale nala zengor yago Mizeti kama sanjama Makisalte jale nala zengor yago kama sanyama eh. melo la jilor jekate yal yawo eh. man de jaale naa la Senghor ite kama eh. bak yo du tamañu nag jëf moo koy feeñal. dëgg la. dafa am léegi ku génn léegi. Hmm. ñu koy wax président Moustapha Niass. waaw waaw. li Senghor jëfoon ci moom feeñal na ko. ndeysaan. moom la ñu doog président assemblée nationale te yàqu ci dara.